non du tout on a de bataille dama bëgg wax rek ne <clears throat> bon je crois que olof olof moo koy wax ne enfin sénégalais xamuñu ko tooñ ko fayu la ñu xam. <laughs> effectivement Ousmane Sonko n'a été qu'une victime dans cette affaire là. maintenant les gens avoir à dire ci ay déclaration mhm. deuxième chose c'est la première fois qu'au Sénégal qu'on poursuit ñuy topp benn acteur politique ci ay discours yoo xam ne def na ko. Mhm. n'est-ce pas bi mars abe bi mu defee son appel à la résistance dëkk bi jaxasoo lu ñuy wax noo dañoo nekkoon ci Covid bi ak état de lu ñu koy waxee état d'urgence et cetera nit ñi dañoo sonn moo tax ñu génn. on nie sa sa représentativité au Sénégal mais un fait est là mooy que bëri na ay Sénégalais yoo xam ne ils sont victimes du système ñu yore seen mer di di di ko di ko denc. mais bu ñu bu ñu créer benn situation nii ñoom dañ ciy génn est-ce que ça veut dire que cest dire xam nga même les événements qu'il y a eu jusqu'au saccage de l'université est-ce que des enquêtes sérieuses est-ce que amoon na ay enquêtes yu sérieuses yoo xam ne def nañ ko bi ñu trouver un lien même bu dee ñi ko def bokkuñu Pastef sax mais waa Pastef ñoo leen nekk di pour ne leen dem leen taal université parce que bu mbir amee foog ñu def enquête léegi nag tu ne peux pas te baser sur la déclaration le lendemain il y des événements qui sont qui sont faits nga ne donc yow li nga waxoon dëmb moo tax lii am kon yow yaay responsable bi. parce que li ñu ko non li ñu koy topp yëpp. oui au de juin il y a eu condamnation. waaw il y mais soulèvement bu am est-ce que Ousmane Sonko euh, defoon na appel pour wax nañu jóg leen. avant. non avant balaa ñu koy jàpp. déedéet y avait une réaction spontanée Ousmane Sonko n'avait pas fait de déclaration. non mais avant bi muy bi muy jógee si non bu muy nee na pour déloger le chef de l' état. non mais mais de manière constitutionnelle après wax nit wax na fi ne dañuy jëlee Macky Sall du euh, kii du mu tudd Abdoulaye Wade du palais. et c'est le chef de l' état l' actuel qui l' avait dit waaw est ce que tax na Abdoulaye Wade euh, def dara mais c' est un discours politique état ki koy sàmm du ay militant am. c'est pas des militants de Benno Bokk Yaakaar ñooy sàmm état bi. maintenant au li ñuy def moom moom mooy. parce que moment bi moom mi ngi observer grève de la faim. oui oui d'accord mais dama bëgg a wax ne Pastef bu ñu tas Pastef c'est pas un mouvement insurrectionnel Pastef parti politique la Pastef amul intérêt tey jii indi insurrection au Sénégal parce que depuis ñu créé Pastef Ousmane Sonko ko d'élection en élection sa cote de popularité day yokk. mais mënoo toll foofu ngay neen dangay def insurrection dans un pays aussi il faudrait que nit ñi xool li li leen di wax ndax am na maanaa wala amul maanaa mënoo nekk chaque fois ngay dem élection di gën a yokk sa per sa sa ñu nekk ak quelques mois de l'élection présidentielle nga ne yow da ngay nekk un mouvement insurrectionnel c'est pas possible. d'accord te professeur wax na ko. Mhm. ñu ñuy jàpp nii yëpp c'est des gens yoo xam ne c'est des c'est des cadres de l'État c'est des fonctionnaires. léegi ñun en tant que coalition Yewwi Askan Wi ñu doon ànd ak Ousmane Sonko. Mm-hmm. ñun lépp loo xam ne def nañ ko. Mm-hmm. bi Yewwi amee ba léegi dañ koy teg ci yoon.